indi xatam ren mii. ak lim leen di jaaxal yëpp. ak li leen xatam ren mii di jaaxal lépp. yàlla na ko def muy xat ma gën ci xat yi. yàlla na ko yàlla def muy xat mi gën ci mboolem xat. yàlla na yàlla soppi suñ mbooleem mi mbit yaa rabbi. jëmee ko ca mbir ma gën a rafet. jëmee ko ca mbir ma gën a rafet yaa rabbi. yal nañu yàlla dàqal lépp lu bon. yal nañu yàlla dàqal lépp lu bon yaa rabbi. yal nañu yàlla indil lépp lu baax. yal nañu yàlla indil lépp lu baax yaa rabbi.